Aujourd'hui, nous accueillons Gary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019 lors du concours général, l'ancien élève du lycée d'excellence de Diourbel, actuellement en classe étoilée au lycée Louis-le-Grand de Paris, après une année prépa réussie. Bonjour Gary, que nous vaut cette visite Bonjour Naté, bonjour à tous et merci aux auditeurs de l'ARFM. Je suis venue pour vous présenter mon roman, pour vous en parler et euh, peut-être euh, espérer creuser euh, un tout petit peu euh, la trame de l'histoire euh, afin de faire découvrir aux gens en fait de quoi je parle dans ce roman. Un roman, votre première œuvre, roman qui s'intitule Sous le visage d'un ange. Gary parle-t-elle de sa vie Euh non, dans les grandes lignes, non, c'est pas ma vie du tout. Euh, il s'agit d'une histoire Euh, et pas autobiographique, mais peut-être les gens qui me connaissent peuvent reconnaître euh, un peu partout euh, des fragments de ma vie. Il s'agit de la vie de d'Aline principalement, qui en un moment donné de sa vie rencontre Karim, Karim qui va devenir l'amour de sa vie. Dans cette relation, il y a eu des obstacles, des troubles faits. La maman de Karim par-ci, Abby, l'ancienne copine de Karim par-là, le passé difficile d'Aline entre autres. Finalement, la relation n'a pas survivre. Exactement. Il y a, il y a vraiment euh, entre ces deux personnages euh, une histoire assez complexe, une histoire que certains lecteurs euh, bah, peinent à comprendre. Les lecteurs avec qui j'ai échangé me disent en fait que ces deux jeunes gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent finalement. Ils s'aiment, mais en fait ne se le disent pas. Ils s'aiment dans le silence. Ils sont toujours dans la contradiction. Mais j'ai écrit dans la perspective de me dire en fait que l'amour euh, qui a relation qui ne marche pas et mhm. qu'il y a quand même de l'amour dedans et que ce n'est pas l'amour euh, qui est la recette magique euh, pour que tout marche d'un coup de baguette magique. Mhm. Non, c'est pas comme ça. Il y a vraiment euh, certains faits qui, euh, qui entrent en compte et euh, dont les gens ne parlent pas parce que ce sont, ce sont des sentiments tus. Mhm. C'est euh, la plupart du temps des frustrations dont on ne parle pas. Et c'est ce qui est arrivé à Karim et à Aline qui entretiennent une relation assez explosive, disons, parce qu'ils ne se disent rien, il n'y a pas de communication. Euh, euh, même s'ils s'aiment quand même. Ce qui nous amène à nous poser cette question, Aline, ange ou démon Ange ou démon, je entre les deux. Je ne vais pas me prononcer pour ça. Je laisse au lecteur le soin d'en décider. Mm. J'ai dépeint le personnage d'Aline, j'ai dépeint ses bons côtés, ses mauvais côtés, j'ai expliqué pourquoi elle était mauvaise, pourquoi elle était bonne, et je laisse à chacun le soin, selon ses expériences, selon sa vie, selon son regard, de juger de sa, de sa bonté ou de sa laideur. Mm-hmm. la suite Eh euh, va être abordée dans le deuxième tome, qui est déjà en voie de publication. Exactement. qui est oui. déjà écrit en voie de publication, et un troisième tome qui est Le titre, on peut l'avoir Oui, euh, pour le deuxième tome, c'est Lorsque le masque tombe. Les masques d'Aline et de Karim. Mmh, vous faites le lien, oui. <laughs> on vient de la famille Kandoum. Je crois que c'est un peu tous les personnages, même si principalement je parle d'Aline et de Karim. Ils nous montrent ce qu'ils sont en eux. Et euh, dans le deuxième tome, Aline va être beaucoup plus ouverte, elle va être beaucoup plus euh, heureuse parce qu'en fait, elle aura délaissé tout ce qui l'enlaidissait, tout ce qui euh, l'insupportait et mhm. l'alourdissait. Et donc, elle est devenue beaucoup plus légère. Merci, Gary Sow. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, on vous souhaite euh, bon vent. C'est tout pour cette chronique. tey jii ñuy dalal Diary Sow nekkoon na élève bi gën a xarañ ci atum 2018 ak ci atum 2019 fii ci Sénégal gannaaw concours général moom mi nga xam ni mi ngi doon jànge ci lycée d'excellence bi nekk ci Diourbel ci jamono ji mi ngi étudiante en classe étoilée ci lycée Louis le Grand ba nekk ca Paris loolu nag gannaaw première année prépa boo xam ne nii jàll na ko yi ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant te di nuyu ñi may déglu yëpp ci RFM. tey nga ñëw nekk bindkat indil ñu benn téere téere téere bi nga duppee ko sous le visage d'un ange jaar yi boobu téere lu muy wax. téere bi mu ngi tudd sous le visage d'un ange te maa ngi ciy raconté histoire benn xale bu jigéen bu tudd Aline nga xamante ne bi mu nekkee xale dafa vivre loo xamante ne euh, dafa metti xamul papaam xamul yaayam mu nekkoon euh, ci këru tantam mu nekk fa ak ay cousin wam ñu koy maltraité léegi mu jël benn décision benn jour mu quitté boobu euh, village bu nekk Fouta mu dem Saint-Louis léegi mu fa demee léegi foofu la vie wam commencé bi mu rencontré Karim te ñoom ñaar en fait euh, dañoo nekk ensemble te kenn wonul keneen ki li nekk ci moom ñuy ñu nekk foofu di naxante si si seen biir te ku nekk mënul wax keneen ki lu muy ressentir lu mu bëgg moo tax ñoom ñaar seen relation neexul Euh, naam sax su fekkee mbëggee la am exactement ci diggante bi. cofeel am na si si diggante bi mbëggante ñu bëggante nañu bu baax. Mhm. mais mënuñoo communiquer. Mhm. ñoom ñaar mënuñoo communiquer te en plus dafa am ay facteurs extérieurs nga xamante ne moo leen di teree nekk ensemble. mbëggeel lay wax diggante ñaari tout tànk di Karim ak alin waaye ñoom seen mbëggeel taxu ko demee noonu am na ay gàllankoor yu bëree bëri yoo xam ne nii moom moo nekk ci biir. waa mujj sax tàkkal tàkkale ko. waaw ñu ngi wax fin bi nag mais bon foog ñu comprendre ni seen diggante en fet mbëggeel am na ci waaye comme que communication amul kenn mënta comprendre keneen ki léegi finalement du du mujj fenn te Karim dafa nekk boobu xale bu nga xamante ne moom dafa foog ni li mu décider am li mu bëgg moo war a am te Aline moom bëggul yooyu ñu koy imposer lan la war a vivre lan la war a bëgg te Karim moom même li mu doon sol sax moom moo koy décider euh, te finalement boobu relation bëgg na Karim trop mais moom li mu bëgg ci moom mooy euh, opportunité pour mu am li mu bëgg parce que moom dafa ko utiliser pour mu mu génn ci jafe-jafe yi mu nekkoon moo tax nag mu utiliser Karim mais finalement dafa dem ba ci biir nag xam ne ni mu ngi commencé bëgg Karim bëgg cee génn nag léegi moo tax mu dem ci livre bi fi muy jeexee mhm. ñu xam diggante bi naka lay mujjee mhm. ndax ñoom ñaar dinañ dajawaat am déet mhm. ndax dafa am loo xam ni daf moo koy mottali ou bien dafa am feneen fooy wax lecteurs yi ñu xaar la mu génn te ci deuxième tome bi dinañ découvrir en fait li nga xamante ne woon leerul woon lépp si si euh, premier tome bi ndax Aline moom dafa bon wala Aline dafa dafa baax finalement exactement kenn xamul léegi loolu yëpp dina leer ci deuxième tome bi deuxième tome bi nga xamante ne lorsque le masque tombe le le tudd mhm. tour bi nga xamante ne mooy comme euh, kan mooy kan mhm. léegi ku nekk nag wone li nga doon fa la xam kan mooy alin ñu xam mooy Karim. téere boobu bind nga ko ba pare. bind naa ko ba déposé ko. maison d'édition nii ñu ngi koy publier. Harmattan nga ci àndal ba léegi. maa ngi ci Harmattan waaye. jërëjëf jaari euh, Sow di rafetlu bu baax a baax seet si bi ñu seet si ni ki tey jii di àndandoog yow rek di jox euh, auditeurs yi dig daje ëllëg ci beneen chronique. je fais partie de l'une des rares personnes à ne pas vouloir se spécialiser parce que je voudrais. en fait tirer le meilleur de moi-même dans toutes les disciplines où je suis bien. Même si son idole effective, Jari en est une pour ses proches. Disons qu'elle est travailleuse, elle est respectueuse et tout ça, ah, elle a toutes les qualités qu'une petite fille et tout ça. elle respecte ses parents, ses frères et sœurs. Jari, Son plat préféré, c'est la tchéké. Eh le plat dont je raffole surtout, c'est la tchéké. C'est pas un, plat, sénégalais, mais surtout ivoirien et guinéen. Mais c'est un plat que j'ai récemment découvert, mais qui me plaît Vous savez le Oui, bien sûr. <laughs> Notre lauréate est également polyglotte. car elle s'exprime bien en anglais et en espagnol, en dehors du français, du wolof et de son peuple maternel.